jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax euh, ñu ngi fii tey ci BCEAO euh, bu ngeen gisee ki taxaw mooy président mobile jiite ay xale yoo xamante ni daanaka jeune lutteur yëpp ci ginnaawam la ñu topp tey ñu woote woon benn réunion fii ñoom mbër yi nga xamante ni ñoom ñoo bokk kuréel gi yëpp doon ci waxtaan mobile nuyu nañ la nga wax ñu lan moo waraloon tey woote bi ak lan ngeen jot a déggoo ci biir waxtaan. waa ñu ngi leen siyaar bu baax di leen sant bu baax yéen suñu mbokk site internet yi nga xamante ne tamit lépp lu ñu woote ngeen nekk ci jël seen temps bàyyi lépp toog di ñu xaar ah, vraiment di wax ne woote bi tey li ko waraloon mooy c'est juste yor association di liggéey bu ñuy liggéey nag di doxal di doxal di doxal day laaj ba benn instant ñu toog xool li ñuy doxal fi ñu si toll ak fan la ñu war a jëm xool li nga xam ne dañu ko bokk ñun ñëpp muy làmb solution yi ñu am ñu toog waxtaanee ko parce que mënuñoo songandoo solution yëpp jubal ci benn terrain bi nekk ci tey looloo waraloon daje bi en plus tey dañoo ñëwoon tamit di liggéeyaat suñu association liggéeyaat suñu association mooy doon aller suñu bureau en plus yooyu lañ nekkoon en plus waaw li ci waroon élargir yi ne ci lañ mm. lan ngeen jot a déggoo ak ci lan ngeen tënku euh, li ngeen jot waxtaan yëpp. waaw bi ci njëkk mooy élargissement bureau bi tey nga gis parce que tamit tey làmb dañ ko jëmoon jëloon rek yemale ko ci bu ñuy wax rek mbëru arène yi toog kaas ni ak nii ak ni ak ni mais association jeune leader loolu du but bi loolu du objectif bi. parce que comme niñ ko waxee woon dañoo jóg pour fépp fu ay coonoy làmb nekk rek ñu kii fa tey boo gisee ku mel ne booy fay suñu wet dina am beneen jàngat bu mu lay jox nga xamante ne association moo nekk ci liggéey tey mu ñëw en tant que vice président association bi ñëw en tant que représentant waa lutte simple fii si ñun. parce que tamit ñoom waa li simple dafa am yu bëree bëri yu ñuy dund tey nga gis ku mel ne Kona porte parole ku mel ne Gackou de ñoom ñëpp ñu am ñu leen toftalal ñu nekk seen ginnaaw loolu moo nekkoon tey bit bi ci gën a nekk beneen bi ci nekk nag mooy terrain bi ñu jëm ci làmb di wax ne am nañ sitin bu rëy boo xam ne ñu ngi koy waajal ñu ngi koy def bunt arène nationale bu soobee yàlla bu dat bi jotee yéen ñëpp di ngeen ci jotandoo xam ne bis temps la heure temps la ci lieu temps lay am mais lieu bi jarul waaj jarul xalaat du changé arène lay doon incha allahu rabbi gis nañ fan yee ay xale tamit ti nañ def sorti ŋàññi ci association bi lu mel noonu bu amee te yéen ñëpp ngeen bokk même couleur bi ngeen di défendre ban taxawaay nga ci am xale yooyu loo leen. waaw loolu xëy na tamit am na ñu ñoo wax ne seetaan nañ ko ba gis ko mais tey bit bi nga xamante ni moo ñu indi woon fii nii nii nii mm. ci loolu rek lañ mën a waxtaan mooy liñ la expliqué nii ne ci lañ nekk ñu ngi ci feuille de bi ñu war a nekk ak war a am rencontre ak lépp luy couleur ci làmb tey gis nga fi waa lutte simple suba séntul ne mun nga fee gis ménageurs yi mun nga fee gis promoteurs yi mun nga fee gis amateurs yi parce que lépp ci programme bi la nekk rek mais terrain par terrain la terrain bu ñu liggéey ba pare ci rek dañuy jóg jàll ci leen mais li ñu lay wax nii daal moo nekkoon lu ñu fi xaw a dajale tey. Boy Faye ma nuyu la tey nga ñëwut c'était la première fois ma gis la fi. ñu jox la euh, kuréel gi jox la ci benn ndomba tànk ndomba tànk boobu noo ko dundee en tant que mbër boo xamante ni défendre na couleur Sénégal fu nekk. waaw ñu ngi lay nuyu di nuyu assistance bi fi nekk yëpp. di wax onze billahi mina seytaane rajim onze billahi mina seytaane rajim d' abord dañuy muslu ci seytaane ba pare. parce que dañoo jublu ci loo xamante ne nii benn xeex la boo xamante ni bon am soxal na ñëpp. parce que làmb du lit frappe kese man dama gis ne li traditionnel bi toujours dañ koy éloigné te waruñ ko éloigné. fii benn lutte moo fi am mooy lutte tradition bi mooy bëre dóor beeg bëre simple bi lépp benn la waaw tey jii nag maanaam bi may jóg dama waxtaan ak suma kilifa ne ko dama jëm ci réunion boobu parce que li ñuy wax soxal na ma mu ne ma mun nga fa dem ma ñëw tamit daal di waxtaan ci li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe yi nga xamante ni moom moo nekk ci làmb jamono ñu waxtaan ci ñun ñëpp mooy maanaam luñ avancer làmb la ñuy wut moom la ñuy wër bëgg maanaam képp koo xamante ne nii lu avancé làmb wala lu dundal làmb moo la ñor nga ñëw taxaw suñu ginnaaw teg ñu loxo dimbali ñu te yàlla tax parce que ay ndaw la ñu nekk ci yoon pour bëgg maanaam li nga xamante ne mooy làmb te ndaw ñi ci dund dafa bëri ndaw yi dund ci làmb dafa bëri waaw ñu bëgg daal ñëpp ñëw jàppale ñu taxawee fi tamit ak tamit waa lit simple yëpp yëpp ma teewal leen fi tey jii nii lit bépp laa boole parce que bu ñu lit simple ak frappe man mii def naa onze combat ci làmb bëre dóor kon munuñ ma génnee ci bëre dóor munuñ ma wax ne ma ci bëre simple nga bokk bëre yëpp benn la quoi. léegi dama woo suma mbokk bëre mbëru simple yëpp yëpp yëpp yëpp woo ñëpp ñi nga xamante ne nii dañoo nekk suñu ginnaaw ñun ñëpp ñu ñëw doon benn booloo dal di ànd liggéey. fi ñu bëgg a yegg ci làmb ñun ñëpp ñu yegg fa quoi parce que gis nañ ni wax dëgg fa yàlla am na benn côté boo xamante ne ñun seetaan nañu ci quoi muy mbëru mbëru simple yi nga xamante ni dañ leen a seetaan ci benn côté ak mbëru dóor yi nga xamante ni dañoo féetee suuf seeni i kase jëmul ci kaw mm. ma bëgg maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñoo nga xamante ne ñoo ñu mën a dimbali ci yoon bi ñëpp ñëw jàppale ñu ñun ñu ànd liggéey affaire yi jëm kanam quoi. ñu jox la ndomba tànk euh, vice président vice président bi yaakaar naa tey laa lay doog a gis ñu jël ndomba tànk boobu jox la dafa mel ni bi nga ñëwee association bi wane na ni ki bokk démb ak ki bokk tey ñëpp ñoo yem même pied d'égalité. waaw loolu la parce am na loo xamante ne nii boo ko yoree di ko doxal noonu ngay doxalee parce que bi ma ñëwee ñu waxtaan ñun ñëpp suñu biir xam nañ carrément ne suma ay kaddu ambition bi am soxal na association bi ñu jël li nga xamante ne moom mooy vice président bi teg ko suma loxo bon ma bëgg ci tamit ànd ak ñoom liggéey tamit mu jaral ma lu ne tamit parce que waaw. non loolu du xuloo loolu du xuloo maanaam ñun ñëpp dañuy waxtaan suñu biir. parce que yow mii nii jox ma kàddu jox ma kàddu gi yow yow mii jox ma kàddu gi sa kër am nga say frère yoo xamante ne da ngay waxtaan ak waa affaire bi lépp kër la maanaam yëre tilim yi ci biir kër gi ci biir kër gi la ñu koy fóote waaw dañuy waxtaan ñun ñëpp suñu biir loolu la ñun ñëpp a bokk ndey ak baay waxtaan la suñu biir way waaw lu ma leeral foofu noonu Onde geddul jóge fii nii Onde warul woon ñëw dafa am fu mu nekkoon mais man maa ko forcé ne ko faaw nga ñëw boo ñëwee jël kàddu ba pare sax doo ko dagg li ngay def dem loolu moo ko yóbbu mais nekkul dañ doon kii de ñun ñun noonu lañuy ñuy waxtaanee suñu biir ay mbër lañ boo ñu fekkee ñu daje chaque jour dañuy mbalagante dañuy lii mais on dafa am ci lu mu nekk nii quoi mais ko jëlee foofu noonu mu ñëw biir fee wax nañ la ko maanaam association bi mu taxawee ñu toll ci communique communiqué nañ ba ñuy war a jot ci association bi yëpp jot ci ñëw tey léegi ñu toll ci première pas yi première pas yi mooy sitin yi ñu jëm sitin yi ñu jëm sitin bi ñu jëm mooy liñ la wax ne dañ koy def marche pacifique boo xam ne ñu ngi ko war a def buntu arène nationale mais jàppaguñ date bi jëlaguñ jour bi te incha allah buñ jàppee date bi jël jour bi rek bu soobee yàlla yéen média bi yëpp di ngeen ci jot muy première pas bi beneen bi ci topp am solution wu làmb war a toog kilifa yi ci làmb yëpp waxtaan seeg ñoom lépp nekk ay notes yoo xam ne ñu ngi ko bind teg ko te incha allahu rabbi kuréel bu ñu toogal ci làmb rek dinañ la ko génnal tegal la ko nga xam ne ñii ñëw ñu taxaw rek pour di wax quoi. Mhm. donc euh, maa ngi nuyu ñëpp donc rafetlu taxawaay bi sama rakk yi taxaw donc di wax ni euh, association bi dafa juddu yàggul am ci benn objectif bu mu nekk. tey association bi tëjuwul dafa ubbeeku bépp luy association tey gis nañu dem nañu affilié wu ci association des sages tey noonu la ñu bëggee association des ménagers comme ni ko mobile waxee sànq ah les entreneurs ah ba ci promoteurs yi ba ci CNG sax ñu dem affilié wu foofu parce que ñun foofu lañ bokk tey bu ñu sañoon tey association bi ak association des lutteurs nationales de du Sénégal parce que lépp benn la mënuñu xaaj tey ñu àndandoo jàpp loxo. àndandoo lépp lu ñuy xeexandoo ñu xeex ko mais dafa fekk ni tey xëy na tey lii li ko bu bu amee dafa am fu am barage tey président Gris Bordeaux ci boppam tey moom la ñuy lancer appel mu ñëw rencontrer ay rakam rencontrer les jeunes lutteurs ñu waxtaan jéem a solution bu fekkee ne ñoom dañuy xeexal làmb. bu fekkee ne ñoom xeexal làmb moo leen tax a jóg kon tey war problème warul mën a am war association yi war nañ mën a fusionné wu teewul ku nekk dinga ger gérer sa présidence ak say activité mais teewul bu xeexul làmb jotee ñëpp ànd xeex ko mu doon benn xeex parce que ñun ñëpp ay mbër lañu tey ñun noonoowuñu at ñoom Gris Bordeaux noonoowuñu at association des lutteurs tey dañoo bokkul gis-gis wala façon bi association des lutteurs di doxalee dañ ko yemale ci VIP yi àggul ci jeunes yi jeunes yi nag yàgg nañ ko kaas nekkoon seen biir di ko kaas mais kenn da leen wuyul woon kenn dégluwu leen léegi nag ñoom ci la ñu préféré beru yuuxul seen bopp problème pour ñu dégg leen mais noonoowuñu at kenn buntu yi ubbeeku na tey fan yi di ñëw di ngeen gis ni kat dinañ def yeneen démarche seeti ménagères yi seeti entraîneurs yi wax leen ni ñun suñu objectif du xuloo kenn du saaga kenn mais c'est juste que situation mbëri ndaw yi ñu xoolaat ko ci biir ci biir làmb. waaw waaw li ñu tëjee rek mooy comme ni ko grand bi waxee léegi ci question bi ngeen ko posé. am na solo leeral yi am na ci solo mooy àdduna bi xam na rek ñun tëj ñu benn buntu. te programme association bi wax naa ko ci biir wax kon jarul woon question boobu di ñëw mooy lépp luy kuréel te nekk ci làmb association bi pare na pour toog ak yow. moo xam ñu ñu démarché la moo xam ne ñun ñoo leen démarché beneen bi ci topp mooy di rafet lu jotaay bi di rafetlu waa lit simple ni ñu ñëwee fekk si ñu ñu ànd ak ñoom di liggéey boo ko benn combat parce que làmb ñun ñëpp la ah di wax ne waa Mbour ñi ngi ñëw waa Kaolack ñi ngi ñëw waa Diourbel tamit ñi ngi ñëw waa Ndar ñun ñi ngi ñëw ba Waalo ñi ngi ñuy woo pare nañ pour dem fépp vraiment ñi ngi rafetlu nii ñi ngi kontaan ci ñëpp ci ñëpp ci ñëpp ñëpp di kontaan suñu mbokk journaliste yi di leen ñaanal yàlla na yàlla def jàmm di ñaan ànd bi yàlla na suñu borom def jàmm di wax ne képp koo xamante ne xaal nga wut sa kuréelu bopp rek li ngi ciy xeex bu dee lu gën ci làmb yàlla na la yàlla may nga am ci ndam ndax ñun ndam buñ giseen beneen kuréel bu gàñe li xeex bi ñuy xeex nii ñun dañ koy tas dem nekk ci leneen parce que na nañ yeneen yitte yu ñuy def amuñu kenn ku ñu teg bët amuñu kenn ku ñu noonool amuñu kenn ku ñu bàyyi xel képp koo xam ne kuréel nga xàll pour làmb dox yal na la yàlla may li nga ci porté muy combat buy doxal làmb nga gañe ko parce que làmb gañe rek moo ñu amal njëriñ wax naa ko ci biir intérêt làmb ñun ñi taxaw nii yëpp ak yéen ñii di caméra yëpp ci la seen intérêt nekk mais sa biir intérêt yow intérêt làmb nekku ci faaw ñëpp bàyyi loolu xel ñu xam ne kon intérêt lamb rek la ñu war a xeex ñu ngi ci ginnaaw ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi nuyu amateurs yi di wax mun nañ jàpp wax ji bëri na mais lu ci dëng nañ xam ne suñu matadi la lu ci jub tamit ñu xam ne ndimbalu suñu borom la di wax ne ñu ngi nuyu amateurs yëpp ñu ngi nuyu promoteur yëpp ñu ngi nuyu ménageurs yëpp ñu ngi nuyu tamit waa CNG bi ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ suñu borom booleel ñuy liggéey ak ñoom jërë ngeen jëf